asalaamaaleykum loolu maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay waaw man maa ngi tudd Ibrahima Diop dëkk fii ci kër ngi lay nuyu di la di la jox sa wàccuwaay waaw lii nag initiative bi li ko waral mooy dañu ñëw ci gox bi nga xamante ne fi la bokk tey ñu fi doon indi suukaru koor doon saafonteeg imaam yi ak délégué de quartier yi ak ustaas yi ak ndaw ñi doon saafante ak ñoom doon waxtaan ak ñoom doon jàllale suñu benn message boo xamante ne tey dañu xool fii dëkk bi jëm fi réew mi jëm ñu ne comme amuñu pas amuñu droit toog di seetaan tey bokk na ci lu tax tey ñu dajale ndaw ñi ak suñu papa yi ak suñu yaay pour sensibiliser leen pour ëllëgu réew mi ak ëllëgu ndaw ñi ci loo xamante ne tey dans l'avenir tey li ñu war a bañ te li ñu war a xeex mooy lan ndaw ñi ñuy jël di leen génn ci mbedd yi di leen xeexloo di leen tojloo di leen yàquloo te loolu ñuy yàq ak loolu ñuy def loolu lépp suñu alal la tey jii li ñu war a def mooy xool nu ñu leen jàppale recadré leen ba ñu mën a tegu ci yoon boo xamante ne tey jii yoon ñëpp la yoon bi ñëpp bëgg la te loolu ëllëgu réew ndaw la te boo xoolee ndaw ñi ñoo fi ëpp kon tey jii bokk na ci suñu combat loolu comme ni ma ko waxee à chaque fois tey jii ñi nga xamante ne dañoo nekk ci kaw ci bopp bi foo ñuy gestuwaat ndaw ñi bu baax te xam ne gox boo ko amul njariñ mënoo amal njariñ réew mi te affaire da ngay commencé ci sa gox pour mën a génn dem ci réew mi te ci loolu lañ nekk di ci liggéey di sensibiliser nit ñi ci li ñu am mu néew mu bëri ñu bokk ak ñoom fas yéene leen taxaw daal ba quelque sorte que tey jii ci yi ñu jëm ñi yëpp duñ ci gis benn ndaw banlieue bi boo xamante ne dina génn di yàq di def naka sa dul noonu ba li wër réew mi yëpp mën a jël référence ci jeunesse su banlieue bi ba nga xamante ne tey ñu leen doon xaar tey duñ leen fa fekk ndax tey bu yëngu-yëngu amee suñu papa yi seen xel du dal suñu yaay yi seen xel du dal parce que ku nekk yaa ngi xool sa njaboot fan la nekk wala fan la dugg te yëngu-yëngu yooyu di am yooyu nu ñëpp dañ koy xool tey bés boobu maanaam ci ci wàllu économie ci réew mi léppay daal di taxaw te loolu dafay doon loo xamante ne tey du du lu rafet ci réew te du lu du lu baax ci réew te loolu nag ñun lépp luñ ci mën a xeex ba loolu dañ ñoo ngi def ci loolu lañu nekk di ko xeex ñu fas yéene ci ànd ak ndaw ñi suñu papa yi ak suñu yaay yi ak imaam yi ñun ñëpp moo sabab tey ndaje waaw comme li ma wax rek xam nga àdduna moom yàlla mayul nit lu sax yàlla mayul nit lu continuer amul leen lu éternel ci àdduna te ni doomu aadama li la yàlla jox liñ ci am mooy liñ ci lekk rek mu rees waaye li ci des yëpp ak liñ ci sol ak li nga jëf li ci des moom moo ci dara jaam suñu borom yi ñoo ko moom te nit boo nekkee ci gox da ngay dimbali jaam yi. te lii li lay mën a dimbaliloo jaam yi mooy lan ci li nga am mu néew mu bëri nga bokk ak jaamu yàlla yi te fii àdduna fii dara saxu fi waaye gis nga fee ñu jëm ëllëg lépp loo xamante ne yu doon nga ko sàkku ci yiw loo fi wut ci yiw du fa doy ak nu mu mënti toll du fa doy kon tey ji yu mel nii ci ngay mën a di dab-dabal yenn yi ñu leen di woowaat ku ci nekk xam ne lii la yàlla jox yàlla joxul la ko dafa gane si ci yow te gan goo gane si si yow bés dina ñëw day dem gane si waat ci keneen jamono bi mu ganesee ci yow nag jéem a gersu askan bi jéem a gersu say dëkkandoo jéem a gersu jaamu yàlla yi nga dimbali leen te yàlla rek tax te xam ne yàlla suñu la mu la jox bu même boo dimbalee sax ëllëg boo demee ba mënatoo ña nga doon dimbali ëllëg mën nañoo dajek sa njaboot dimbali leen ndax loolu moo nekk ci àdduna amul kenn kuy def lu baax ngay gis safaan amul fenn kon nañu dimbalante jàppalante te xam ne loolu bés buñ ko defee réew mi dina jëm kanam réew mi dina dox te li ñu bëgg ci réew mi dina mën a nekk parce que ñàkk dimbalante képp moo waral yi ngay gis nii yëpp muy am loolu bokk na ci may wax naan ku amuloon njariñ sa gox mu amal njariñ réew pour nga mën a amal njariñ sa gox yow mi dëkk ci gox bi yàlla dénk la teraanga teraanga boobu mu lay dénk da ci war a dimbali jaam yi dimbali sa waa gox loolu daal moo moo laa ci amul ci wax waaw loolu ni moo ko nar a jëfee yomb na yombul ndax ku ku ku ne gis jamono ji fi mu toll ak jamono bi nu mu ni mu mel tey dem chaque jour man rek dama ci doy modèle dama ci doy exemple ndax dama nekk ndaw ci banlieue bi commencé ci zéro xaaruma état ci lenn ma am ngëm-ngëm ne lu war a mën a nekk la ma ñafe suma àdduna tey ba mën a yëg si fii ma yëg si kon tey expérience boobu mu dund man ba mën a yëg si fii tey war naa ko mën a partager ndaw ñi waxtaan seek ñoom sensibiliser leen si ndax am na si am te ne ràññee nañ ma à travers làmb ji tey bu ma leen waxee fi ma jaar ba mën a di taxawal yenn événement yu mag yi ci réew mi tey bu ñu amee ngëm-ngëm boobu rek te yàlla mën na leen ci dimbali te loolu benn exemple rek laa leen ci jox muy sama jëmm ndax soriwul kon tey jii liñ ci mën mooy ñoo ngi koy dox di ko waxtaan ak ñoom bi ci échange ak ñoom te ñu bëri comprendre nañu ñun li ñuy wax comprendre nañ suñu message te am nañ ci ya te ñoo ciy ànd ak ñu te am nañ ci yaakaar dañ ci am résultat bu bu baax daal wax naa la ko sàng ne tey ñun dafa am fuñ dañu déparé ci zéro ba yëg si fi ñu yëg si expérience bi ñu am dañ koy partager ndaw ñi tey am nañu ay idées yoo xamante ne tey buñ ko toogee wax kook ndaw ñu partager ko ñoom ànd see ñu leen mën a accompagner dinañ leen ci accompagner ba ku ci nekk ëllëg di nga mën a am ci li ngay jàpp loo xam te ne même bu dee donte journée nga fay gagné sax mu nga da nga koy gagné honnêtement di ko yóbbu ci sa wayjur sax tey jii loolu dinañ ci ànd ak ñoom te ñoo ngi ciy xar suñu tànk tubay te lépp luñ ci mën ci kàttanu yàlla dinañ ko def pour jàppale ko jeunesse banlieue waaw ñi ngi euh, sant yàlla bu baax di am mbégte fii ci sunu quartier ci unité 6 bu Kër Massar ci loo xam ne sunu doom sunu jarbaat di sunu goro moo ko xelaat te xelaat bi yàgg na koo jëfe waaye tey lañ koy sog a feeña ndax yàgg na fi dugg yàgg fi taxawu waa koñ bi taxaw it jeunesse bi ndax léegi dégg nga léegi xale yi ASC bi am na lu mu leen taxawu defal leen man mi nga xam ne tamit man na yàlla nattoo ma jiite jàkk ji it xam naa loolu ci moom dugg na fi ay yoon def na fi lu bare bare bari ci mosquée bi kon nag lii yàlla waxoon sallallahu alayhi wa sallam rek moo ci nekk fas ba bi ma tuumar lii ma la dénk nag muy message bi ma la jox léegi nag wax ko ca kaw ñëpp yëg ko kon loolu la jëfe tey bu ñëwee tey jii ne dama fi fekk samay kilifa dama leen a war a jox sukkaru koor ma ne ko nañ ko defee ci anim bii ngeen gisee nii ñu oo ñi nga xam ne ñëpp a ko soxla de ndax foofu la réew mi toll waaye nag dañ cee seet ñi nga xam ne xëj na ñoom ñoo ci gën a ñoo ko gën a soxla lool lool ñu partagé ko ak ñoom ñu joxel ko ko te it gis ngeen yéen gis ngeen seen bët gis ngeen mboolom mi fi teew xam ngeen quartier bu toll ni unité 6 li fi yeewoo macha allah euh, lim bu takku la waaye dinañ fexe ci ni ñu ko organiser ba ku nekk donte ne ñaari kilo sax nga ci am. incha allah dinañ fexe ba nga jot ko ciy sant nag baax di ko ci gërëm di ko ñaanal yàlla ndax ñëpp ñi nga xam ne ñoo toll ci am alal te dëkk ci dëkk bi du sax fii mais réew mi yëpp ñuy xool lu nii te nañ ci roy di jëfee te dimbale waa dëkk bi diine lislaam diine solidarité la mais réew it ngir ñu tabax ko il faut ñu am solidarité ànd ak suñuy kilifa yi tabax réew mi ànd ak suñuy kilifa diine ak suñuy kilifa réew ñu ànd ak ñoom ci tabax bi jàppale leen ci dimbale leen ci te moom it bay na waaram kon ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm waa koñ bi yëpp incha allahu taala euh, ñun fii nag amul ci xàjj ak seen amul musulman amul chrétien ndax fii boo ñëwee tante bii tey jii boo ko limoon lu mat fukki chrétien ñi ngi fi toog bu ñuy def conférence dañuy ñëw dañuy participer cotisation bu ñuy laaj ci jàkk ji dañuy ñëw dëkkin wu rafet lañ fi dëkk kon lii ñu am nii mu indi ko fi ñun ak ñoom ñun ñoo ko bokk incha allah te danañ ko partagé ak ñoom. imam seen ñun ñëpp la fitna du tabax réew coow bu bëri du tabax réew dafa am benn kilifa diine mu ne boo yéeg ci garab ñu sànni la nga wàcc for xeer wa sànniwaat ko doo doo mës a yéeg te nag xale yi wax dëgg yàlla man de fii moom ñun li ñuy ñaax nit ñi di ko ñaax waa réew mi yëpp laay wax na nañu bàyyi yàq nañu bàyyi toj ñii toj doomi jaamur lañ de ñañ koy tojal nag seeni doom toju ñu ko de kon dañee war a ñu ñëpp man gëmuma débat yi dama ko xaw a na ñu toog ñu bokk ñu waxtaan gis nga xeex bu amee yàgg-yàgg xeexoo euh, toog waxtaan a koy lijjanti nañ leen toog ñu waxtaani réew mi jàmm ak salaam am fi ñu bàyyi xale yi ñuy yebal ñuy toj di yàqate li ñuy yàq ñun ñoo ko moom ñu ñoo koy jëriñoo boo tojee car buy daw ma bëggoon a dem Dakar car bi dawatul sama soxla dina tagi tébe ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon nag moom ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm ndax lii mu woo xale yi won leen ubbil leen yoon ni nii la ñuy liggéey kon war nañuy fas joog ñoom it ñu bàyyi yàq bi bàyyi toj yi bàyyi xuloo bi ŋaayo yi te jéemal tabax réew mi ànd ak ñi koy tabax ñu bokk tabax ko yal na ci yàlla def